jemba seex becca cuun ak saal sangam avril la woon seen daje mook seexam ba avril la dajeek soppeem ba taset la yàlla def seen tase bu njëkk ba moonu jural bépp njariñ ci sang ba ci toolu baykuli la samp goppam ba samp xelam wa ca ginnaaw watiir ba pasef bu rëy ba waral mu daw ba dàpp ko sangu mbindéef yi am na it bëgg-bëgg ba saxal cantam ga sax di jëfal sëriñ ba ba jeex ci moom takk ba doon amir ba saxal cantam ga sax di jëfal sëriñ ba ba jeex ci moom takk ba doon amir ba kër Baay Isma Diouf la ko jox ràndi ba fosewu ko Cheikh Béthio Thioune Mourad Ba bu doon bëccëg la muy guddik sangam ba bu def dëkkit mooy yoon wa jëm ca dëkk ba Sëriñ Béthio yërmandeem yàlla na gën a saawaan ci jamono